salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi ngi nuyu mbokki jullit yëpp di leen siyaare di leen balwaq di leen balaq di ñaan suñu borom mu boole ñu baal di jiital ñaanal saahibul fadila sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom yokk aw fanam ak wéram te defal ko yéeneem ci liggéey bi ni ngeen ko waxee moom moo digle muy bisub ñaan suñu borom ak dellu ca mu mel ne ci yëg-yëgam njaalbeenuk muharram dafay weeru seexul xadim njaalbeenuk muharram mel ne mooy wàccaayu ñëwuk seexul xadim ci dëkk bi sëriñ bi moom mu daan am pas-pasub di dem njaareem di ko waajal loola ci yëg-yëgam digganteem ak sëriñ bi la tey jii nag wala ci yoon wii mu joxe ndigal tàmbale woon ndigal la ci xisbu eh, tarxiya sëriñ Amsatu ak ñi ñi àndal ci xaside yi ci ñu waaj mel waajtaay woowu sëriñ bi doon def ñu waajal ñu waaj moom fii ci dëkk bi mel ne ànde nañoo ak sëriñ bi ca njaareem gàttandu nañ ko fii ci Touba waaye jox nañ ko suñ bopp ba kenn amatut ci moom wàll loolu mooy pas-pasam mu wax ne nag buñ jógee ci loolu nag muy gunge sëriñ bi njaareem ak gàttandu ko fii ci tuubaa ak jox ko suñ bopp ba dara dootu am ci ñun wàll lu dul moom ñu dolli ca nag tolluwaayub jamono ji muy mbas meeg nawet beeg aajo yeeg yëpp ñu ñaan ko waaye pas-pas bu njëkk bi moom mooy loolu mu wax. loolu nag mu jaare ko ci yàlla sa yaari salli sëriñ Touba yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi mas a boole muy alquran ak xasida waaye ku gis ku ne xam na tey ni dëkk bi feese fenn fu nekk ay tànt nga fa mbooloo maa ngi fi xasida yi tamit njàng mi ak sonorisation bi tax mu sàkku ci daara alquran yi ñoom ñu jàngee ci daara yi kon daara yi def naa tuur bu bari door ñëw nii waaye ñi ngi ci biir daara yi di jàng wala ñi ngi ci seeni jàkka ci bunt daara yi di jàng dañoo ñëw rek am lu ñu leen di toppatoo sil fii ngir war a delluwaat waaye kon falilaahi alhamdu ni ko sëriñ bi bëggee woon muy alxuraan ji ak xasiida yi maase na ci dëkk bi defe naa moom dëkk bi moom fooy jaar rek lépp ngi jolli tey jaww ji fees na ak alxuraan ak xasida waaye yaakaar naa sax yaatu na ci biir réew mi ñi mënta ñëw ñëpp loolu nag ñu di ca ñaan suñu borom li sëriñ bi fas te bëgg ko suñu borom defal ko ci xam nañ ne bëgg-bëggub dong yëpp mi ngi ci biir bëgg-bëggub sëriñ bi ndax am na lu sëriñ bi mas santaane am kum ma sax ne ko lu ngeen ciy fas mel ne ku kuroon seetlu mag ñi seenu taalibe mu ne ko Mbàkke ñun kay amuñu lu ñuy fas ñu ngi sa biir fas mu ne waaw yéen de bu ngeen fasee bu ngeen fekk bu ngeen feccee man nay këriñ waaye man bu ma fasee bu ma feccee wurus wa gën lay doon kon loola mooy wéy ba tey jii pas-pasub Cheikh Mouhamadoul Mountakha wurus la ci kaw beneen bu dul moom moo tax pas-pasu donga yëpp mooy sëriñ bi defal ko suñ borom defal ko ak bëggam ci barkeb sëriñ bi eh, yi nga xam ne nag mooy tolluwaayu jamono ji muy mbas mi muy nawet bi muy aajoy donga yëpp yàlla na ko suñ borom saafara ci barki sëñ Tuuba